Assalamu alaikum. Euh, je m'excuse pour tout à l'heure. Euh, c'est des choses euh, difficiles à contrôler. Je tenais d'abord à vous remercier. Parce que c'est dommage, nous, nous, nous, êtres humains, on a tendance à se rendre compte de la valeur des choses que lorsqu'on les perd. Et aujourd'hui, tout le monde a des regrets. Que ce soit moi ou Aïcha, même pour un coucou qu'on aurait pu lui passer parce qu'il était haut là-bas au quatrième et de monter, c'était des fois difficile. Je, je, me mettais en bas et je lui, fais, je lui envoyais un bisou. Et on en arrive à regretter des moments pareils. On se dit pourquoi je ne suis pas restée plus longtemps Pourquoi j'ai pas l'effort de, j'ai pas fait l'effort de monter les escaliers C'est des choses qui arrivent. il n'était pas prévu qu'il meure. Enfin, en tout cas, nous, on ne l'avait pas prévu. Peut-être qu'il meurt, oui, mais pas maintenant. Euh, et c'est des choses qui échappent à notre contrôle. Et on accepte. Parce qu'on est des êtres humains. Et la vie, la vie est faite d'épreuves. Et ça, ça en fait partie. Parce que perdre quelqu'un qu'on a connu depuis notre naissance, et se lever du jour au lendemain et apprendre à vivre sans lui, c'est difficile. Mais ça aurait pu être beaucoup plus difficile s'il était un autre type de père. Il a fait de nous ce que nous sommes. Il nous a donné les outils nécessaires. Il nous a accompagnés et il est parti dignement comme il a vécu. Et je ne peux dire, je peux qu'être fière d'être sa fille. on me demanderait de renaître mille fois. Je voudrais que ce soit lui qui soit mon père. Seulement, il le dire en wolof bi njëkk mooy loo xamul baatin ba fu mu toll dangay maandu ci àtte zaahir si te ñun àtte zaahir daf ñoo yomb. te nit fi muy jëfee ak fi muy tuubee nit mën na koo bañ a fekkee te bu dul dara sax nit ku ne digganteem ak boromam kon ñun ñëpp war nañoo góor góorgóorlu ci bu dee dañ ne dañ koo sopp ñu jàng maandu parce que ñàkk maandu bari na lu mu yàq te ñàkk maandu bari na ñu mu nar a lor ëllëg c'est pour rien yàlla wax ne li gën bokk na ci lii yi gën a dëgër maanu te bokk na ci li gën a jafe on a tendance à dañuy am bijou di ko seetaan wala di ko taqalal suñu bopp ba mu dem ñu setal ko setal ak taqal sax nit mënu ko ndax yàlla ku mun na ma setal bu la ñëpp doon këpp ban doo taq waaye ku mun na ma setal bu la ñëpp doon setal tamit doo set mais dañuy sant yàlla bim ñu boolee ci njabootam et je vous remercie du fond du cœur pour cet hommage que vous lui avez rendu vous l'avez rendu à quelqu'un de grand à quelqu'un de sincère à quelqu'un d'honnête à quelqu'un de pieux à quelqu'un avec des principes auxquels il s'est accroché jusqu'à la fin il a lutté il a vécu dignement et il est parti très dignement il est parti tellement dignement que tu l'aurais vu, tu te serais demandé s'il était vraiment mort. Et moi, je ne doute pas du fait qu'il soit au paradis. yàlla moo ko wax yàlla ñu ne rus naa lakk ki nga xam ne jëmbët na loo xamante ne mi ngi jëriñ ay doomu aadama bàyyi na fi xam-xam boo xamante ne ay nit ñi ngi ciy jariñu ba jur na doom yu koy ñaanal te bu dee loolu rek moo yóbbu nit àjjana ma xam ne du tardé fenn parce que ñett yëpp jéem na ko mëtal bi mu làqoo xaw ma ñaata jàkka lañ ñu ñëw wax ñu ne moo ko tabax te xamuñu ko ñu ñëw ñu ne daf ñu waxoon ñun moom ak yàlla te comme dee na dañ koy seedeel njabootam te loolu moom ñu moo ñu gënal leneen te ku sañoon am baay bu mel ñun dañ koy sant dañ koy gërëm parce que amuñu fayam amuñu fayam parce que ki la yar def ci yow diine mënoo am fayam ki la yar def ci yow valeur yi tax foo romb respecté la kenn amul fayam ki la te utalu la sens interdit kenn amuloo fayam ki la yar te ki nga xam ne boo nee doomam laa kenn du la ciipatu baa kenn du la xeeb kenn amul fayam te doom bu ne nu mu taxawee na ko ay wéy juram te yaree dong la kon ñun dañ koy sant mais dañ leen di sant yéen on vous remercie du fond du cœur ma mère vous remercie du fond du cœur elle le remet autre là mais c'est beaucoup trop difficile pour elle mais on vous remercie du fond du cœur au nom de toute la famille je vous remercie merci beaucoup à